caméra leen ma waxee sama gars yi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla ak bi ñu sant suñuy waajur di wax a'uuzu billahi bismillah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaw Bamba ñu leen di siyaar xam nga di siyaar suma séeréer suma membre yi ñu siyaar ñi nekk ci bureau bi yëpp ñu siyaar xam nga kilifa gi toog moom sama kàlla ndax man Diallo laa sant moom bala sant waaye tamit ku la feesloo moo la yàppaloo bu ñu wax tamit wax ci leneen Bamba moom duñ ko ñaanal ndax nit ki moom boo fekkee ku toog lekkul naanu nga sarax ko nga jël 10 000 francs jox ko ak saaku ceeb jaru mu lay ñaanal ko ko jox yaa ñaanal sa bopp kon moom ñaanal na boppam daal. fekk si ñu nekk toog di wax ay di xaar ay leneen ak leneen moom mu ñëw jël nañu kaa leen def formation ay tamit ñun dañuy wax si suñu bopp ndax Bamba ku tedd ki moom li muy def nii danañ ko teg loxo loolu force la dañ koy teg loxo waaye ñun tamit nañ wax suñu bopp daal tamit moom buñ ko ñaanalee intervention moom ñu mu formé ñeneen ba pare formé ñu ñun ba pare ñu ñu teg teg suñuy diplôme suñu kër pertement lay doon tant que moom gars yi ministre bi gis na ko ba ne na gars yi ñëw defal ko maanaam sponsor ko pour mu former ñeneen ci kàttanu yàlla nga jël gis fii nii xoolal xalaatal fii ba fii ñu ñuy toog fii banque buñ dugg mu toj dañuy waxtaan dëgg rek yàlla tax kër gu ñu dugg mu toj fii ñu bëggoon bu jaaroon fii nii dañuy salteel ba Kër Massar fi ma dëkk barke si dañ koy dañ am nañ doole bi waaye kon boo demee ba jàppale ñu jox ñu ay diplôme ñoom nañu utal liggéey ndax wax dëgg yàlla ak yéen dibi maa ci yi rek wala fu ñu jaamu toj nga jël ñu mel ne Cheikh Bataar Cheikh Diallo Cheikh Gueye ñooñu nga xam ne Cheikh Matar nga xam ne moo yoroon buuru Màkka kooku ne dañuy waxtaan dëgg te yàlla tax man bu ma wax ngeen di man seen njëriñ laa leen di waxal yéen ñëpp ba may jug yéen ak may yedd bu fa wax bu fa wax waaye bu ma waxul doo leen xëy daf leen nàkk waaw ma wax ngeen jël ñu jàngal ñu ñuy jëyee arme jàngal ñu ñuy nangoo arme jàngal ñu ñuy ànd ak sa VIP ba pare wax dëgg yàlla ak yéen bi ngeen teg ñu fii liggéey ñu tamit ku la fees doo moom la yàpp loo te ñun ay doomu góor lañ dañuy ñaan kii nee na cinq kee na quinze damaa bëgg nga jël ñu ñu def formation ba tànnaa la ñu nga xam ne defuñu woon formation nga jël leen. <laughs> boo ne cinq ngay jël man far force si ñuy dem damay bokk te bu keneen ne damay bokk keneen ne damay bokk man damay wax dëgg barke barke maam Cheikh Ibrahima Fall la tànk dañuy dem man nii maay seen mag moom dañuy waxtaan moom seega billaay wal maa wala wala seega man yàlla mooy bindee nit muy wax nit ñi di ree waaye li may wax dëgg la man doofu jàpp ma kër mu jaar ñu joxuñ ko ma dafa bëgg ngeen xaw maa dégg boo ma dégloo rek la passé ak jamono yii lex yi xaw naa soqaliku tuuti lan moo ko waral lan moo ko waral dafa am salaire booy bii booy bii may ma rek booy bi bu defee formation ba pare dafa takki jabar bu ngeen fay fajar di gàddu sotalaam bu ngeen fay fajar di gàddu sotalaam di def lu ko neex ama ndaw mu ngi sulu ko neex fii ay booy fi nekk ñu ñu ngi xëy ñu gortuñu booy di fi bàyyi dañ naan ay addina bi dama leen ne ñaan ngir jëmmi Serigne Touba Xaadim Rasul ngir jëmmi yàlla ji yow moom ba nga sant ma sant Diallo léegi man xam nga sama ma yow yaa la nekk sama jaam léegi man jël naa lépp jox la ko nga nekk sunu buur ñun moom la ñu sama gars formation ñu ngi sant di gërëm di yàlla si yàlla def jàmm fii ku fi jug ñu ne nervi nañu xool ñu doon def waxu nervi waxu nervi yëpp nañ ci génne benn photo bërëb gis nga ñi nekk ci administration yi ñoo gën a ngande maamu mbëri léegi ñoom ñooy def ñu naan mbëri amul mbër bu yàq ndax mbër bu yéen ñi laay conseillé mbër lañ ku fi jër nga dóor boo dóoree sax mën nga dóor wala sa nijaay wala sa maam wala sa rakk ñu ngi ñaan ngir jën Serigne Touba Sénégal lañ jël lépp waxtaanee ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mais Fatima sama yaay ñu ñu lay sant di la gërëm kontaan naa jërëjëf jaajëf tànkay mbër lañ nag tànkay mbër lañ bu ñu def ay so formé formé nañ ñu formé soldat waaye tamit dañuy def yëfi mbër. sama gars yi ki da teg ki da teg ki da teg ki da teg ki da teg ki da teg ki da teg ki da teg ki da teg loolu teel ci loolu teel ci loolu teel ci. di dégg dégg teg di dégg dégg teg ba di dégg jël.